ayca merci beaucoup ami internet comme ni ñu ko waxee rek tey bu ngeen gisee euh, toxawayu yanji yi toga togaayu yanji yi dara waral ko lu dul Bayla wali ak euh, wa Ramadan social Bayla ñu wat la rek di la wat ak tek ci di la ak. waaw soxna si ñu ngi lay ciar di la béggee bu baax di sante yalla bu baax baax baax di gërëm suñu ñaari wajur di gërëm suñu serigne serigne Abdou Karim mbake di nuyu ñëpp nag kullu yaay faal comme ni ma ko waxee ak baay faal yëpp waaw di la siyaaraat bu baax a baax a baax a baax nag waaw. waaw yi mooy waa seen bës xam nga sama gars yi ñoom ah, euh, sama site américain bi nu mu tëddati waaye Bespro waaw. Euh, Wasaare. ñëpp a ngi fi ah barki Serigne waaw rajo Dakar international. waaw di leen siyaar nag bu baax gis naa seen taxawaay waaw Sénégal Buzz barke alxuraan gis naa seen taxawaay bu baax yéen foo leen ne dama leen di wëri barke Serigne Saliou di gërëm nag waa Ramadan social maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax maa ngi jël nuyoo bi di ko teg suma sama loxo yi waay yaay suñu yaay la te ji lépp waale bëgg waale moo tax mu demee nii. il il il il de kii la jóge mu doon suñu yaay tey lañu am 6 mois xaw ma léegi ñu am at suñu groupe bi léegi ñu am at mais ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax suñu yaay am nañ fi nag ay raq am nañ fi ay mag am na ñoo xam ne tamit suñu morom jarbaat lañu mais ñun ñëpp ñoo bokk benn xol nag ànd liggéey moo waral li nga fiy gis waaw. woote ñu wuy si la yombul tey nag nga woote gis ñoo xamante ne jógeekoo nañ ba Île du ñëw waaye ñu la jege lool te kenn gisu leen fi. waay mom la lay wax ni sank man lima joylo man fi la juddo fi la amé jabar fi familol, liggéeyee am fi fami lol bari fi fami lol man setul la bat fala yalla def na Pikine ni sax day febal ñu ne dem lañ ngeen woy Bayla moy lima wax sax dama koy confirmer rek demin wooyu Bayla awma ma million awma khalis awma dara mais damay jël sama keul bi Bamba dal yor barke Xaadimu Rasuul dugg ci dëkk bi di màjjal parce que trois mois nit day am jalis wala mu am cancer wala leneen ak leneen ma xool encaissé ay cinq cent mille wala un million comme ni mu koy waxee rek am na suma benn xarit boo xam ne kooku ñoo fondoo un million six cent laa ko laa ko màjjalal yóbbu ko principal yàlla def lu gën am na koo xam ne yàggul ki mujj nii problème mu bëñ la woon mais dafa demoon ba sonn ñu soog ma koo wax mako entrée principale mu gañu auto biñ ko yobbu sax amuñu ko ma wat ko jël cabria euh, kii bi auto yobbu ko Thiès mm-hmm. mais fi la juddo keneen ki tamit alhamdullah mu ngi fi amna ay jigen mm-hmm. amna ay jigen bari na ay jigen benen bi tamit social bi ngay wax ni moy armée bi ni man dong dama la ñew sax di di wax armée bi nangam fess nangam nangam ñaan legi dof la mm-hmm. man kasse ma wo ku ñuy wax Cissé laay koli ñu doon cinq personnes ñu nekk ci nekk ci nekk ci may jël sama tànk balaa maa dugg sama kër trois heures di matin lay nekk dem ginnaaw raay comme waa ginnaaw raay maa ngi leen di siyaar bu baax ñoom benn association bu mag la ñoom it doole nañ ma dali foor amul ñu ma duggul ci gox ba géejawaay def benn benn benn benn benn euh, euh, s euh, kii ni ko waxee whatsapp ci ci ci sama suuf ma yokk sama armée noonu la génnee xeex mu kii du ma bàyyi ma fen jàpp nañ ma si ñetti yoon police jàpp nañ ma ndax armée pikin bi barki Serigne Touba armée Pikine bi boo duggee si biir morgue bi ñun ñoo ko defar musul am morgue maako ko fa tabax pompe bi ñu fay def di joxe robinet boobu pompe pousse yi ñoo fa nekk amul maire bu ko fa def nag maa ko fa def man ak ak ak collectif sama suuf ma yokk sama armée kon social boobu armée bi la soog a ñëw fii mais nag suma kilifa sama patron muy Waly Seck moo waral lépp nag. ñi ñëpp koo fi gis waali moo leen jaral lépp barki Serigne Saliou Mbacke ma ne leen nag ramadan bi nañ ko def ramadan social waaw ñu gis waaw waaw noonu la dompat sax ci sot la bokk boo ci bañul dara ñu gis ni pikin toll bari loolu ay ndaanaan Eumeu Sène gis nañ ko ci sa ay vidéo nga wax ni invité nga ko Boy Niang Ama Baldé et cetera te gisuñu ci kenn koo xamante ne rek jóge koo nga sa biir kër ñëw fii wala nga yónnee ndaw comme niñ koy waxee rek xam nga moom Bayla Bayla pikin la depuis nongoloo ba tey. ah Zoro ma jaaga de ñëw na fi sama papa jooju gis naa ko fi ñoom Fallou Benzema ay doomu Pikine lañu. Moussa la maire Mbaye si maa ngi koy sant di gërëm moom ta bu dee bu dee ñëw na sax mbay si ak ak ak ak ak ak Benzema ñëw nag waa daan kontaan naa si loolu mais waroon na gën a yaatu waroon na gën a yaatu comme ni nga ko waxee rek mbër yi léegi laa dégg ñu ne ma. sërif bi dafa wàññeeku léegi di ko ñaanal yàlla na suuf sedd ci koom yàlla na ko yàlla yërëm muy sëriñu Boy Niang mais amul ku ma demul amul mbër boo xam ne depuis Mbapat maa leen tëggal Mbapat ba nu ñu toll doon champion ama bu ñëm ñëpp nag. Eumeu Sène ñoo foondoo ñoo juddandoo benn koñ. xawma ma Eumeu ba mu daree bëreel arène ba léegi maa ngi dem si làmbam di sonn si làmbam waaw comme ni ñu koy waxee rek. Mm-hmm. waaw sëñ Fallou. Mm-hmm. c'est que damaa def lu bëri Pikine. Mm-hmm. ba may am quatorze ans ba ni ma toll barke alxuraanu karim fi may liggéeyee sax am na ñoo xam ne vingt cinq personnes ñii dem nañ tukki man jàngal leen liggéey ba nii ku ci tux sax mën a la demal sa yoon. fii doomu Pikine nag laa la wax de. kon am na loo xam ne def naa ko Pikine waxuma lak social ak leneen ak leneen. dund naa ku nekk kenn musuma musuma nag c'est kenn lu bon nag. lu dul lu baax laay xool ànd ak yow mais nag laa ma comme niñ koy waxee rek bu ma ñëpp bàyyee na ma waali téye teel ma sama groupe bii barke alxuraanu karim waali mooy li may wax chaque jour dama koy jox sama bakkan bi sax addee na ko jël barke alxuraanu karim laa lay wax nii na ma ñëpp bàyyi waali téye ma garaawul amul problème voilà daf fekk zéro yóbbu ma ba cent voilà Waly foo la may yóbbu li may wax gars yi ñoom ñoom Amadou ñëpp a toog ñi xam nañ lépp jiwo yaa ngi nii barki Seydina Mouhamed bugguma mooy sonn wala nangam ak nangam am na yenn yoo xam ne sax du waxu fii. mais ñenn ñi nga xamante ne ñëwuñu ci programme bi te te te sës ci yow es ce que du ànd bi ngay ànd ak Waly moo leen arrangé wul peut-être. non buñ dugg ci bañ a ay faramaareen ñoom. non buñ dugg ci foofu non garaaw non loolu noonu du ay ay affaire ay ànd nangam sangam danga ne kenn deful kenn dara waaye lu waaye def sa bopp. Mm-hmm. yàlla bi mu defal asamaan gi fekk fi Adama ak Awa te loolu dafa yàgg. ñun ñoo bokk xooloo gën a ndaw ci doomu aadama waaye moo ci ëpp njëriñ ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay du waay waal yi war a bi du foofu de Pikine la ñu wax Pikine cent cent bi yaa ngi dégg mais dafa war a nu waroon yaatu waa Pikine ñëpp nag laay wax dafa waroon gën a yaatu man nag buñ ma fayoon sama bor waxuma la sax groupe Ramadan social barke Seydina Muhammad ni fi nit du xaj parce que parce que ci bir lekk yi sax maanaam nañ def trois nangam sang parce que nee ñu fi ëpp nañ loolu. Mm-hmm. mais dara de lekk yi dañ koy lekk de misiwee ya ngi ñëw dañ koy tok ñu xewlo na ko ñu bir sama nawle yaa ngi nii caméraman yeeg ñoom seen lekk rek def. Mm-hmm. dañ lay rek nga joxe sa ay dernier mot. waaw. waaw di sante yalla bu baax rek di gëreum waat wali Seck bu baax baax wa Ramadan social. moy mm-hmm. ñi logo ya ngi Ramadan social am na Kaffrine am na Dakar bu Dakar mooy bu mag bi suñu numéro nag dañ koy joxe muy numéro bàmba ak suma numéro kul koo xam ne bëgg ngaa bokk ci groupe Ramadan social nga ñëw dugg ñun lii lañ xam xamuñu leneen ak leneen ak leneen parce que Ramadan social ñaan nañu yàlla ba nit di feebar sax ñu dimbali la ñun fa lañu teg suñu bët waaw waaw ay dara ne ko mu ñëw. ay ci ko ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf